Je pense que c'est une très bonne initiative qui vient à son heure et heureusement qu'il l'a compris, il l'a très bien compris et il l'avait déjà énoncé lors de ses premières euh, allocutions. Euh, déjà le 2 avril, lors de son adresse à la nation, il disait qu'il fallait une réforme, redorer le blason de la justice qui a subi quand même ces dernières années, euh, comme il l'a réaffirmé ce matin, euh, de profondes secousses. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est de notoriété publique que la justice quand même, qui est rendue au quotidien, mais sur bien des aspects, euh, elle mérite euh, d'être revue, euh, d'être des réformes profondes, comme je le dis très souvent, des réformes même souvent qui, sont très impopulaires, mais qu'il faudra assumer parce qu'elles ont un caractère révolutionnaire. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde la composition de ces assises qui regroupe quand même euh, la nation dans sa globalité et son entièreté, on est confiant et très serein euh, quant aux euh, conclusions de ces assises et qui, je le pense très sincèrement, ne finiront pas dans les tiroirs, seront bel et bien appliquées pour permettre à ces justices-là de permettre au Sénégal d'accompagner le processus de développement et euh, les enjeux de prendre en charge les véritables enjeux de développement du Sénégal. Euh, nous restons confiants, nous avons des raisons d'espérer. Euh, di ci euh, sante yalla bu baax di xam li mom moy rew rew bo ñewé mu am nga gis né am ay jafé jafé li la war moy nga yéssalat jafé nga yéssalat ko euh daal di koy gëna nam donc tey jii le président de la république son excellence Bassirou Diomaye fay li mu woote mooy ñu jéem a waxtaan ngir nammaat li nga xamante ni moom mooy justice ngir gën koo teg ci yoon ba nga xamante ni dinañ ko mën a suqali euh, gën koo tëggaat ba nga xamante ni coow yi am ak euh, ni nga xamante non la lay yëngale réew mi fan euh, at yi ñu romb gis ngeen ne Sénégal yëngu bu baax justice nekkoon au cœur de la préoccupation euh, ñu mettroon ko au box des accusés donc jàpp naa ne tey yeesal yi nga xamante ni war nañ ko yeesal justice bokk na ci ñu fexe ba coow yi mën a wàññeeku société humaine la ñu nekk conflit mënul ñàkk mais ñu fexe rek ba saa bu conflit amee justice benn mbaxana rek di fa am liñ naan fi mbaxana doone benn donc dañoo seetlu woon jamono yi passé na xëy na ay mbaxana yi daan nañ fa bari donc nan la ñuy def ba mbaxana mi doonaan benn rek yaakaar naa loolu moom mooy li nga xamante ni moom la ñuy beneen bi it mooy nan la ñuy def di préserver doomu aadama àq ak yelleefu doomu aadama yaakaar naa ne loolu moom moo sabab ndaje mi te am nañ ci jot bu rafet nag ndax te ki nga xamante ni moom moo ko initié tey Euh, ñeent fukki at la ak ñent 44 ans euh ñew tamit euh, ci jamono bo xamanteni Sénégal yaakar nañ ne soxla nañ ñu yéssal à tout point de vue et nous sommes confiants japp nañ ne euh, du mujj ci tiroir yi waaye dinañ ko appliquer bu baax jërë ngeen def. jërë ngeen jëf dégg ngeen kàddu yi nga xamné ne moom la ca yëkkati.

bu taxawul rew euh, rew du dox te euh, je pense que passer bi ñu mu ñu génn rek témoignal nañu l'importance de am justice bu baax de am ay homme de valeur de am euh, ay homme am éthique ñu incarner la justice parce que texte yi un na am problème mën nañ ko soppi mais aussi dafa am problème boo xam si ni problème ni ñuy incarner texte yi la aussi Alors, je pense que dañ ci war nous liggéey dañ ci dem en profondeur ñu xam que la justice n'est la fi nekkal du fi nekkal la parti politique Sénégal bi mën rassuré wu ci dëkk bi mu dëkk mu xam que ni il est protégé le citoyen xam ko mu xam que ni bu tënkoo ci taxi taxi aussi dina ko protéger euh, après mais euh, lu ñu gis ci jamono yi ñu weesu on est content du fait que le président premier dialogue fait justice et je pense que nous fi fait ay euh, réformes régler le problème Inch'Allah définitivement. ok indépendance de euh, la indépendance impartialité amna ci ay domaine yo xamné ay domaine technique la ñu def euh, ñu def droit ñom xeyna ñom ñoy gëna gën sori ci lolu mais ñun li ñu gëna amul solo moy le peuple bi ñu représenter ñom ñu mëna a gis seen bopp ci justice ñu mën ko wóolu moy li ma wax sank rek moy euh, les personnes yi xamné ñom ñoo nek à la tête di incarner suñu ay euh, loi ñi nga xamné ñom ñoo jurer ci suñu ay né dinañ doxal suñu justice ñoo ñu prêter serment dañu wara nek ay des gens yi nga xamné ñun mënañ leen wolu à travers ni ñuy juste justice ci suñu tour donc du am kenn ku weñ loxo am ingérence des politiciens wala une force extérieure bu nous manipuler du moment que texte textes ñu bind ñun ñep ñu pas ci à nañ je pense que problème du am donc ñun ci indépendance justice li ñu gëna si taxaw ci nit ki des hommes de valeur des hommes yu am je pense que bu ba am les textes peuvent être suivis. Euh, suivre on nañu discuter ci texte et ak interprétation ce loolu mën nañu ko parfaire mais qui def loolu c'est la personne donc les gens qui koy incarné dañu des hommes de valeur déjà des patriotes ñu ragal yàlla ak le serment qu'ils ont fait ci tour sénégalais je pense que foofu la ñuy gën le taxaw ñun ko incha allah. 2019 ba 2023 gis nañu. tey nga dégg kaddu yi nga entendu que vous la ñu jëlal ñu jël Ousmane Sarr.

violence yi fi 2021 et 2024. ba a loi d'amnistie bi tam mais si nous wax justice nous devons sans tabou sans tabou pas pour condamner les gens mais pour faire saafara ci en 93 André Ziavas démissionné président du conseil constitutionnel démissionné donc nous sommes ci vide juridique Abdou Diouf André Ziavas palais avons avons la pression pour reprendre reprendre service mais trois jours yi ñu ko joxoon délai joxewu ci quand même résultat comprendre joxewu ci résultat noonu la le dossier bi conseil constitutionnel euh, Youssou Ndiaye moo nekkoon président Met Babacar il n'était que vice président jour bi dossier bi delloo foofu jour boobu la ñu assassiné Maître Babacar Seye te loolu leeragul ba léegi tey ji nag su fi ñu invité ku André Ziavaz l'actuel ministre de la justice Ousmane Diagne moo nekkoon substitut procureur biñ may entendre man ci affaire médecin il était le substitut du procureur il y am une phase d'enquête enquête boo xam tenir un assisté auprès du juge d'instruction man mom ak maître collège dans ci cabinet Il mu posé une question à charge pour Ablaye Wad, parce que le dossier était politique mais ba ma ko tontoo dafa am malaise ci saa si dafa tëdd ci juge ni biram day metti Non la quitter audience kon tay jii kooku ne af substitut procureur ci affaire metti Andrésia Vaz mi nga xamni mo moo démissionné woon président commission recensement des votes man de Clédor bëgg naa am jotaayu waxtaan ak ñom pour laaj leen laaj Andrésia par exemple lan moo waraloon mu démissionné lan mo don problème pour mu publier résultat yooyu lan mo tax Kéba Mbaye démissionné moom wax ko ci ben revue Jeune Afrique mom nekkatu fi mais Andrésia mi fi nekk je crois que man bëgg naa ñu comprendre Sénégal comprendre lan exactement en 93 plus récemment aussi événement yi fi jaar on a tué des centaines de personnes on a emprisonné des milliers de personnes non humaniser milieu carcéral moins investir dans les infrastructures pénitentiaires infrastructures pénitentiaires sont des centre de détention ay établissement pénitentiaire parce que si on ay des xatloo ay manque d'espace, sur surpopulation population. koy indi tabax infrastructure parce que prison est depuis 1960 ñu ngi fi depuis 1960 ñu ngi fi avant même 1960 mais 1960 nous avons l'indépendance. am indépendance la savez capacité am yokkuwul nit ñi yokk day am problème kon solution la mënti jël te a ay infrastructure pénitentiaire parce que ni ngay des ay école hôpitaux ay tali Nous nga war a ay infrastructure y compris pénitentiaire donc loolu mooy solution bi puis, noppi budget bi accompagner ko li ñuy allouer le détenu euh, par jour ñu yokk parce que pour nous mën nous décemment ba assouplir les conditions de détention parce que xar sax beaucoup ko yoree di fexe mbaram set di nga jéem a muy am ngooñ am repas di nga ko sang di nga ko topoto asamak nit mi nga xamni dafa sacré donc lolu je crois que lolu lay junj te dinañ ci djem inshallah jëm incha allah. jërë ngeen jëf ba tey ñu jëlee leen yeneen ci ay kàddu euh, kàddu. kilifa gi boo nekkee <laughs> ñoo lay ziar sëñ ñoo lay ziar sëñ ñoo ngi ziar. ñoo ngi ziar baax. sëñ eh, benn rek eh, kàddu gi rek. les eh, nga ba fi nga xam ne foofu la nekk. si jam ñaajo ngeen dégg kàddu nga xam ne moom lañ ci yëkkati réaction yi yi nga xam ne sànq dégg nañ leen euh, ñu yëkkati ko si xam naa ne euh, ginnaaw gi nga xam ne ci nekk gis na ñetti at yi ñu génn wala ñeenti at yi ñu génn yoonu Sénégal ni meloon amul benn sénégalais boo xamante ni maanaam soxlawul sax nga jàng droit yoon def kon ne buñ premier chantier biñ sumbu ne dañ koy dañ koy gëna safara moy mbirum justice japp na lolu lu jaadu la amul ben benn sénégalais boo xam di nga ci poser comme question li lii ko wona def pour man yeex gi lañu wax mais surtout sénégal mom pour man demande sociale la sénégalais yi bi ñuy voté ji dañu voté pour ñu réformer justice ndax mënu ñu xel munta nangu de ñaari année yi ñu genn sénégal ni fi yoon melone da ngay teud sa keur sax ñu xey japp la def la mandat de dépôt six mois 8 mois ñu atalé ne la defoo dara loolu nag jàpp naa ñak ko safara moy trahir sénégalais kon bu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye toogee ne premier dialogue bi nga xamante ni dèjà lii dafa nekk ci calendrier bi euh, président Macky Sall dafa ko defoon décret ne dialogue bi ñu njëkk a woot dañuy réformer justice bi amul benn Sénégal ne war nga ko taal kon bu ma gisee teewaayu yenn parti politique yi ak teewaayu ñi fi teew ñëpp dañ ci sant yàlla bu baax te la war a mën a demee lépp lu ñu def ñu waxtaane ko ba tënk ci dara nga xamante ni buñ cey génne consensus lay am ñun demanoo ca leneen ba ci ñi nga xamante ni ci kujje gi ñoom tamit la ñu faroon waaye seen parti Euh, ku ci mel ni Pape Djibril Fall gis nañ coow li nga xam ne jotoon na am après élection yi tey ñu gis ko mu teew fi nga xamante ni moom moo di ci ndaje bi. waaw loolu du ma ci bëgg dugg sax mais daal li am solo mooy lii dañ ko woote pour Sénégal woowuñ ko pour parti politique wootewuñ ko pour coalition kon jàpp na ne benn Sénégal boo xamante ni nekk nga jàmm war ko mën a tardé amul kon day ñaan yàlla liñ ci tënkee mu nekk loo xamante ni buñ ca jógee problème mu justice moom leneen lay nekkati ndax am réew moom mënut a ànd a ànd mënut a développé te bi jaarul ci yoon. ndax tey ji investissement yi pour ñu gën ñoo ñeme pour ñëw dëggal Sénégal seen alal il faut que yoon maanu bu yoon maanu wala li muy gën a jur mooy frustration def la neex te dara lu ci te jàpp naa ne loolu Sénégalais yi war nañ ko mën a moytu daal kon teewaayu ñi fi teew ñëpp muy man muy keneen ak keneen loolu lañ gis moo tax ñu war fee teew C'est ce n'est pas des saints, ce n'est pas des prophètes, c'est des hommes comme nous qui ont des faiblesses, qui ont des défauts et qui ont des qualités. Alors euh, parlons d'actualité. Euh, gis nañ ni que euh, récemment rek jàpp nañ kenn koo xamante peut-être am ñenn ñu de la République ñu gis ni que vous avez fait un communiqué pour le soutenir alors pour nous, avec ak soutien boobu noonu si ban sens ci sensu d'abord comme li ñu olof Njaay di wax ku jiite xaj baw la mënoo jiite te duñ la saaga ñun ñi dañuy saaga ñun ñi dañu doon saaga bu doon ku ñu ku ñu saaga ñu jël la yóbbu la ci kaso bi kon kaso bi waxatuñu fees waaye day exploser ku jiite dinañ wax ci yow dinañ la critiquer maintenant ñiy critiquer d'accord uma ñuy critiquer di saaga de waaye seen droit la parce que ku nekk ak sa xam-xam fa mu toll ak sa tolluwaay ak sa mots yi nga am ak say expression mais la liberté d'expression être consubstantielle à la démocratie il faut nous ñi que la liberté d'opinion dafa la liberté d'expression dafa am te dañ ko war a sàmmonteel léegi nag ku ci yow te mais demal nga porter plainte de diffamation